gaste ka e, e, e, e Karimo Mubaraka mi toog di ñaan yàlla na yàlla guddal aw fanam ci wéral ay cëram di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir yàlla gën ko fee yàggal gën ko fee wéral ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp bàyyi woon njabootu islam kenn kon ñu ngi koy ñaanal ñëpp sëñ Abo ñu ngi lay masawu di la sant di la gërëm ci continent bu sori bii nga xam ne si ne ñëw nga fi muy diggante Brésil ak Argentine ak coono yi nga jànkoonteel ba ñëw fii ci wér nañu ñu leer ñu dara waralu ko lu dut maanaam fajug aaja jullit ñi rek kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp di ñaan yàlla yàlla defal la ay tawféex yu yaatu ne wér nañu faju aajay jaam ñi rek moo la ñor nam ñore woon sa waajur wa kon ñu ngi lay maso bu baax xam nañ ne liggéey bi métti na lool ci yow xam nañ ni tamit maanaam heure bi nga dox nii ñu ngi koy tub bu wér a wér a wér a wér diis na ci ñun lool waaye ñu ngi koy sant yàlla sa teewaay fii ko defee dëkk bii nga ñëw moo di La Plata La Plata nag nekk benn province ci réew mii nga ñëw euh, boo fi ñëwee dañ ci am kontante bu wér ndax sa rakk ju baax ji Cheikh Ibrahima Khalil Mbacké dafa wëlëranteeg waa dëkk bi moo tax biñ déggeen danga fi ñëw ñu feer lool nga agsi fii ngir buñ ko gisee seereel ko loolee ci wér na ma ne xolam dina ci sedd ndaxte saa su ñëwee fii bu tijjee ba jaar ci xalifa général sa bunt ci yow lay jaar kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax dëkk bii nga ñëw nag dëkk boo xam ne si ne maanaam sa Ibrahima Khalil bi mu fi njëkkee ñëw man fekkuma fi waaye deuxième sa kër soxna sa fi mee la ñëwoon ab pentre ci lañ ko daal doon bi mu fi dellusee li tax mënuma laa ñàkk seeral yooyu kàddu bi mu fi dellusee fekk ñu ñu ñëw fi li ñuy wax ay Dakar keroog dëkk bi yëpp ñun ñëpp ci benn néeg lañ dajaloo yaakaar naa ni bañ dajaloon wuute na ak tey lii muy fii ci ki Kiñanta Korenta keroog maanaam biñ dalalee sëñ bi fiñ ko dalal amuñu pexe ndax booba ay gone ay daqaar lañ ca mënuñu dara ca bi ñu ñëwee sëñ bi la ca marke marqué fiñ ko dalal dafa yaatu lool ci moom ma am ci feer lool lam ñu njëkk a wax seen jëwriñ laa sëriñ Tuubaa mooy suñu mooy suñu sëriñ maanaam kàddu yam ñu wax maanaam ni mu sedd suñu xol te ñun fi ko dalal ni ñu ni mu yéeme woon ci ñun waaye ba mu ñëwee dafa mel dañ ko dalal ci hôtel yu yaatoo yaato yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ca booba Mbàkke dëkk bi tàngoon na lool liñ doon yor ci ay mala lañ ko doon yor ñu ñuy dab di ko nungu ñu ko Mbàkke mbokki taalibe yi mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem ñi fi teew ñëpp sëriñ Abol Baraka moom seex Mamadou Fadal mi ngi leen di nuyu mu ngi leen di sant bu baax di leen jot li nuyoo sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des Mourides moom Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikhul Khadim di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ku wér ba li mu sumb lépp mu def ko na mu ko soobee te nu ànd koog moom te am ci ngërëmal sëriñ Touba jël nuyoo bi di ko teg ci loxol doomam sëriñ Sidi Mokhtar mbake mii toog ci wetu ndey jooram moom sëriñ Abdoul Aziz moom Cheikh Modou Lamine di leen sant bu baax di leen jot liit nuyoo waa kër alhaji Mouhamadou Falilou Mbacké gépp di leen jot liit nuyoo rakkam di kenn ci moom def boppam ab taalibe muy sëriñ Ibrahima Khalil moom Cheikh Mouhamadou Fadal moo xam ne sëñ bi nee na du ñu ñaar kenn lañu ndax nee dëkk bi mbaa réew mi ci moom la ko jëkk a dégg bi fi fiy ñëw it li wolof di wax bu lëg ma ci na ko gërëme cooy kon lu ñu fi dollikoo rek ci jëmmi ñëw sëriñ bi nañ ko sante sëñ Ibrahima Khalil ndax dox na ci lool sonn na ci lool bis bu set mu woote kon nañ ko sante sëñ baa ngi leen di jotli am nuyoom ak sëriñ Seexaw Balla moom di woote na yoon ak sëriñ Mbàkke ñoom ñëpp waa ka sëñ Fallou yëpp mu ngi leen di sant itam di leen nuyoo leeg jëwriñ yi mu àndal muy ay taalibeem yoo xam ne dañoo nekk ci seeni activité bàyyi ko fa ànd ak sëñ bi yoon wi muy sëñ Alaaji Gay Jeng ak sëñ Ibrahima Jaw Jóob da leen di nuyoo leeg ñoom ngeen xam ñooy ñan ci sëriñ bi waaye ñoo yéen rek la sëñ bi jamale jëwriñ sëñ Moustapha Fall sëñ baa ngi lay nuyu yaag mbooloo mi nga jiite di ànd di liggéeyal sëñ Touba sëñ bi ne na ngeen góorlu bu baax ci li lu fi indi te banu fi muy liggéey ak jaamu yàlla nee na sunu digga sunu boroom na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax góorgóorlu ci jaamu yàlla yi mooy tandi ko tere yi maamam ju tedd ca kat maam Cheikh Ibrahima Fall daf koo tënkoon ci ñaari baat jëfe ndigal bàyyi tere mu yoonu murid di lislaam jëfe li sunu boroom digle bàyyi li sunu boroom tere sunu borom daf noo sàkk digal nu tey digalu nu lenn lu nu munta jëfe wante terewunu lenn lu nu munta bàyyi sëñ bi ne na ngeen sax ci ndigali sunu borom yi te bañ koo boole dara nangeen ngeen moytandiku tere yi sëñ baa ngi leen di sant bu baax a baax nag ci ñi leen fekke ngeen nosu di ci genn buum ni ko sunu boroom waxee noonu yi la leen fekke kon sant na ci yàlla bu baax a baax nee na ngeen góorlu bu baax a baax ndax lii sëñ Moustapha wax sëriñ Sidi Muxtaar wax ko léegi waa kër maam Alaaji Malik ne fi waa kër Baay Ñas ne fi bu leen gisutoon ci mbooloo mi dana leen ko laaj kon ndokk ba mu leen gisee ci mbooloo mi kon wan na ne li sunu boroom waxoon yéen a nga ca kon na ci sax bu baax a baax sëñ bi nag ñëwam bii mu ñëwee fii na ngeen ci rafet njort bu baax tànn ci ak xel mu dal dimbale sunu rek moo ko tax a jóg nañ ci rafet njort bu baax a baax a baax dëkk bi incha allah dana noy nepp la Plata li ko wër lépp réew mépp dana nooy ner ba kenn ku nekk na ngay sàkku addiya mu lay jàppandee noonee ñi amut yi kay itam incha allah dana ñaan ci sëñ Fallou ngeen am ko na ngeen ko bëggee ay passeport kay la bëgg ngeen am ko yéen ñëpp yooyu réew mi. di dem ak ñëw nii ñëpp ak fu waay mën a dëkk nag bu leen ci am it lenn nag lu ngeen di sikk sàkk bu ci kenn am benn jafe-jafe jàpp ne la nga nekk sëriñ bu mënu ci dara loolu moom ku ko foog ci sa xol mbaa ci sam xel mën ngaa forcé daal la léegi te dem te xam ne sëriñ Fallou weesu na foofu lii sëriñ Sidi Mada Maxtaar wax léegi ne moom ñëw bii amu ci leen lu muy sikk sàkk foofee la nu war a ne ndax xam naa ne ñii tey jii yéen ñi daje fii am na ci ñooñ tey lanu nu mas gis sëriñ bi kon yërmaande sëriñ Fàll ju mu indaale fii man biir na ma ne ku ko teg bët sa ajo dana faju ndax keroog ba muy taaj guddi Cheikh Mouhamadou Fadal la mu wax may na tuuti ñu àggale soxna si rek ndeysaan jërëjëf waay li nga li nga xam ne moom la fas keroog dane sama ñëw bii may ñëw fii de ñaan naa ci barkab Seex Mamadu Faadal te fas ko ci te lu ma ci fas nag Sëriñ Fallou dana ko ko defal ku ma teg bët ma teg la bët aaja ju ma la fekkal Sëriñ Fallou dana ko saafara waaye ku yàlla nar dogal nga teg ma bët te sa aaja nortu fajo bul ma teg bët bul ma la teg bët kon nun ndokk ndokk ba nu ko tegee bët na xam naa ne ku ko ku sa aajo nët faju doo ko teg bët kon ñun ñii nga xam ne si ñu nga ci barab bii bàyyi suñu yitte yëpp ñëw jàkkaarloog moom ngir jëmmi Seex moom Faadal li nu bëgg sëñ Fall doon ko defal na ngeen góorgóorlu nag ci daayirab sëñ Touba bii ci mbooloom sëñ Touba mii nga xam ne dana ko fee fekk te dana ko fi bàyyi na góor góorlu ci wuy si wootee sëñ Touba yi sëriñ bi nee na wuute wootab sëriñ Touba wóorut ci murit nee na lu waaye mën a nekk ak loo mën a def ak foo mën a ne wuy si wootab sëriñ Touba bi moo gën ci yow nekk it lenn lu gën ci wuy si wootab sëriñ Touba bi nee na bu nu wootee ngir jëmmi sañ tubaa loo jàpp da nga war a bàyyi wuy si ngir sëñ Touba nee na murit bu ko def jullit bu ko def moo xam nga yëg ko moo xam yëgoo ko danga nga fa yokkoo moo xam nga yëg moo xam yëgoo te itam ku ko def nag. sëñ tubaa takkal na la gàllaaj gu bees tax ba bis ba del si ba nga ko defee kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax nee na daal li gën a gàtt muy gudd mooy képp ku leen te talal liggéeyal sëñ tubaa dutu ko tal moom kon na ngeen am njort lu rafet bu leen am lenn lu ngeen di sikk sàkk ci ñëw sëriñ bi nee na da ngeen yokk da ngeen mucc da ngeen am jàmm incha allahu wante nag na ngeen ko ci ndigal yi suñu borom yi te mooy te ndi ko tere yi te góorgóorlu boole seen i xol muy benn lu waaye yéen sa bopp na ko yéen sa morom ndax àdduna amul soro fii bi ñu fii ñëw kenn ku nekk penn kenn par kenn nga ñëwee fii lii sëñ Tuubaa def nag waral ko melal ko nii bu ko kenn yàq nanu ko dëgëral te xam ne mooy sunu gàllaaj nit ki nag lépp luy njariñam di gàllaajam te lépp di njariñul tey ak njariñul ëllëg danga nga caa war da nga caa war a ngoy nag katiw la sëñ Fall waxoon nañ nag katiw ci sëñ Bamba mii bañ koo booleeg dara nañ ci nag katiw nee woon na man de ku ko fa na ñukk mën a la fa ñël kon nañ nag katiw ci sëñ Bamba mii nee woon na suñ xol yi buñ ci booleeg kenn nag sëñ Touba nay sëñ Touba rekk nay sëñ Touba dong foofii la sëñ bi bëgg ngeen ne fa bu ngeen ko defee de dana baax te dana gën a baax baax na ba noppi ndax kat sëñ Ibrahima Khalil saa bu fi masaan ñëw ci ndigalam la fi daan accès tey daaw def lenn lu ko ëmp mosu fee ñëwi te tàgguwu ko waayente nag nit ki mbaa taalibe bi buñ ko joxee aw dooñ muy aw sas di ko ko bayloo léeg-léeg njaati ga la war a dem xool tool ya nu mu mel loolu dong ngay tànk sëriñ bi waaye xam ne li fa waroon def lépp def na ko dafa ñëw rek ngir gën a maasale mu gën a nooy te nooy bi bu ñu ci mucc mukk nañuy am xéewal tey takk di yóbbu te kenn bañ ñoo takk yóbbu nag ci barkab Seex Mamadu Faadal sëriñ bii nag day dox dox yi nu Baay Faal mooy liggéey bu mu tàmbali buy bëgg àgg mu tàmbali beneen dafa liggéeyal sëñ Fallu Juma fa Touba fa Ndakaaru boo jógee Patte d'Oie jëm ci ancien aéroport ba danga ko gis sa loxo ndeyjoor ñu nga ca phase finition ya muy bëgg àgg mu ne barabu Cheikh Mamadou Fada bi laa bëgg ñun jullit yépp ñu defar ko ba mu méngoog borom yeesal ko ba mu bees tàq daan ne ku ñu tudd sëriñ Fallu ngay góor fukki junni CFA moo la ca war ku ñuy tudd sëriñ Fallu ngay jigéen juróomi junni CFA moo la ca war. ñun ñun ñu tudd sëñ Fallou nag nun yàlla danoo dimbale te kenn waruñu caa jiitu nag ndax suñu la ndax sëñ Fallou mag ma def ne ko waa Mbàkke nun de danoo baaxoon nun waa senegal ku la tudde doom nga xotti ko mbootu mu ne mën naa loolu mën naa lu gën lool te loolu laay def ñu ne ko Mbàkke lu mu mu ne mën naa ku ma tudde doom yaa sëñ waari ñaari waaju ma yóbbu leen àjjana te ñun ñëpp muy tijaan bi muy murit bi muy karajee bi dee tàbbi àjjana rek nga bëgg te sëñ Fallou nun gàddul na ko ba noppi mbaa nga bëggum fallu te tàbbi woo ci loolu wóorut mbaa nga bëgg la fallu ya bëgg te tàgg tàbbi ca loola wóorut kon képp ku ne fii say te nga yaakaar ne la nga la nga nekk sëñ fallu mën na ca dara ñëwal fekk fii sëñ bi ak 200 yi sëñ bi laaj léegi dolli ko ca ñu defal la ko ci barabu Cheikh Mamadou Fadal ba ñuy laaj nag nga nekk ca la nga nekk toog ca la nga toog te sëñ fallu mënal nu lépp tey ak loolu wóorut ci jullit rawatina taalu bi kon ñëw leen fii fekk fii sëñ bi jox ko ngeen koy jox mu yóbbu leen ko ci barabu Cheikh Mamadou Fadal ba def leen dànk rek yéen ñëpp ñëw leen bu kenn des sëñ bi daa ñëw ngir dimbalanu maam Cheikh Ibrahima Fall kat daana daana wax ma seetaan ma ñeetaan ku toog ca la nga toog nag yor ko denc ko sëriñ bi ñëw fii bëgg noo dimbale sëñ maam Cheikh Ibrahima yéene di fay jëf di bàyyi jëf du ñu fay mukk kii yéene bàyyi ki jëf bala ñoo fay kii yéene dañoo fay ki jëf ba noppi kon nag ñëw ñu leen jëfal sëñ Fallu ci lii nga xam ne si moom la sëñ Abol Baraka di defal sëñ Fallu te bu bis baakat ñun ñëpp ñooy bokk fas pay gi te fii lay tàmbalee du xaar ba ëllëg baaxowul wax yaakaar naa kon nanu na cal ba sëriñ bi li mu nu yéene mu defal nu ko nu li nu bëgg ci sëriñ bi mu defal nu ko ci dëkk bi nu am ko jërë jëf sëñ bi taalibe sëñ Bàmba yii nga xam ne gëmuñu ku dul sëñ Touba wante sopp nañ sëñ Fallou lool ndax sëñ fàll ku neex a sopp la sëñ bi bërk démb bi mu wàccee ca capital ba la mu wax mbokki taalibe ya yaakaar naa ne sëñ góor mi yor Touba TV Argentine teewe na ko nee woon na li ma leen di ñaanal du ma xaar ba ngeen dem léegi ngeen koy gis démb am mbokki taalibe yu doon ñëw yor seen bagage yooyu ñuy tere. ñoom ñëpp lañ jàpp bi ñu ko waxee sëriñ bi motu 30 mille ñu ne ba nañ ñëpp ak seeni i bagages la mu leen waxoon na leen du ma xaar ba ngeen di dem ngeen di ko soog gis da ngeen koy tàmbalee gis léegi kon ñooña am na lu ñu ca gis kon te ñooña mooy ñii rek nañu gis ne sëñ Fallou ñëwoon na fi sol mbubu maam Cheikh Ibrahima Fall na ngeen dalal seen xel bu baax sëñ bi nag mi ngi leen di soññ ci lu ko ñor muy loo xam ne. sëñ Touba sëñ Mountakha wax na ci démb rek muy tuubaa ca kanam na ngeen góorgóorlu bokk ci ñi jëmale Touba kanam ndax kat ku ca bokkul dana jëm kanam ku ca bokk dana jëm kanam maamam njëkkat maam Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne mbir moo xam ne boo ci jàppee mu dem boo ci jàppul mu dem nee na nga la waaye jàpp ca ca de sa sag ba mu mel ni yaa koy doxal te doxaloo dara sëñ Touba doxal lépp kon jàpp leen ci liggéey boobu liggéey bu ñor sëñ Mountakha tey jii ku xool réseaux sociaux yi gis nga la seenub liggéey te yemul foofu am na yeneen yoo xam ne si gisoo ko ci télé bi kon jàpp leen ca tubaa ci kanam ji bu ko defee kat dana gën gën na ba noppi dana gën a gën Touba ci kanam bi sëñ Moustapha nee na ñi ngi koy doxal kon nag ànd leen ñi koy doxal bu ngeen bëggee dox ndax mbiri sëñ Bàmba kat ku bokk ci ñi koy doxal doo taxaw fenn sa léppay dox sëñ bi jaami yàlla yi jullit yàlla yi taalibee sëñ Bàmba yi ñaanal leen ñu yokk te mucc te am jàmm ami kayit ami xéewal fekk la fa Touba jërë ngeen jëf ngeen tàllal loxo sëriñ bi ñaan bisimilah. da ngeen amin ku ñuy amin da ko ñaanal nag mu yàgg fi